salon bi salon Chep euh, Rock Louga nekk ci bergerie boo xam ne kilifa gi dina nuyoo léegi moom fi may fan kilifa gi nuyu naa la. waaw sëñ bi ñoo ngi lay ziar di nuyu mbokk internet yëpp na ñëw nga ci bergerie Faydu nekk fii ci Louga loo ñu ñëw exposé fii nii ci ci Chep Rock bi. incha allah tur bi. Talibe Baye. Talibe Baye. Euh, bergerie Faydu fu mu Bergerie Faydu moo ngi nekk Grand Louga. waaw. kañ la tàmbali ci càmm gi. bon Bergerie Faydu nag tàmbali na ci càmm gi booy xool par rapport ak léegi mën naa wax ni 6 ans léegi. 6 ans 6 ans waaye. Euh, lan moo la motivé ci laadum. waaw laadum dama ci nekk nekk ci ak sumay xarit ak sumay doomu ndey. ñu nekk ci ma génn ñëw gis ni lu am solo la ma dugg ci waaw. Euh, nga dugg ci 6 ans lan nga duggee. waaw ci 6 bi may dugg dama njëkkoon a yor ay xar yoo xam te ne la yaakaar ni loolu ay laadum la yor ko dem ba ci yàgg ma génn di dem ci foire yi gis ne lii moo ëpp doole yaakaar naa li ma yor ma génne loolu dolli xaalis dem wuti leneen. waaw waa loo njëkk a uti femelle a waaw man femelle nag laa wut. dem boole ci wut tamit mal muy mal bi taxaw tey waaw ah, waaw bi ma koy jënd damaa dem visite kër euh, sëriñ Modou Awa bala mi nekk Kébémer ma dem gis ko visite mu am 15 jours ma ñëw ne sëñ bi lii leen neex na ma ak ña ma àndaloon ñoom sëriñ Dimbe ñëpp sëñ bi ne ma ah kon da nga ma jox ko millions yu bari ma kii nii mu ngi nekk doomu dan dan nekk doomu bâtonnier yaayam nekk yaayam nekk benn doomu All Black Rimbo moom moo ko jur moom mooy Xawja ok waaw nga jël ko ñaata weer. maa ngi ko jël ci instant bi mu amee 15 jours laa ko jënd. 15 jours 15 jours laa ko jënd bàyyi ko foofu noonu ba mu ba mu fer ma jëli ko. ok waaw. 15 jours ba mu nga jëli ko. Mhm. lu mu la liggéeyal ci benn moom mu ngi tudd métal waaw ndax maamam mooy bâtonnier te xam naa ne bâtonnier ñëpp xam nañ la mooy ah, bâtonnier moom mu nekk nag métal ñëw nag doon métal waaw moom ñëw doon métal euh, na ñaata mois moom instant bi ni mu ngi ci 24 mois ci la am waaw 24 mois la am waaw euh, métal lan la def bel sëriñ bon instant bi ni mu ngi produit ay doom mais li mu jot a produit lépp yaakaar naa ni bi mu wàccee ba léegi daal amul dara lu ma ci téye. Hmm. waaw maa ngi sant yàlla bu baax. waaw nga ci defoon rëccu woo non non du ma ko rëccu parce que instant bi ni kii rek ci biir foire bi rek maa ngi gis ay éleveurs yoo xam te ne dañoo yaakaar ne am na loo xam te mën na maa yëngal mais man dara yëngalu ma hmm. parce que démb dama ko dugal pour natt ko spécial waaye mensuration yi mu génne moo jaaxal gars yi. waaw non foire bi jeexagul moo tax am na loo xam ne c'est des secret waaw c'est secret comme ñoom dañ ma ko nattal foofu te am na suma nawle yoo xam ne natt nañ te am na yoo xam ne mën na koo génne tant que foire bi jeexul mais après naa la dee waaw euh, kon daal mais am nga satisfaction bu baax sant yàlla moo tax ñëpp ngi ñëw parce que ñëpp gis nañ ko dégg nañ ko xam nañ ko moo tax ñuy ñëw anay doomam waaw benn doomam mu ngi ci dëkk kii ni doomam la booy xool la seex la booy xool seex bi moo nekk mooy daw xare ak dawul xare waaye seen yaay laa waroon indaale far biir bi di métti ma bàyyi fa benn doom ji indi benn bi ci deux mois. te feragul déedéet feragul. léegi lan lay napp instant non cinq jours yàggul. ah cinq jours yàggul. waaw mais am mais wala mi for naa ci gars yi. day lekk ci super laadu bi bu baax parce que moom la xam. Ah. waaw moom la xam. macha allah waaw moom mooy daw xare. waaw léegi kii mooy xoolal daw xare moo nekk nii dawul xare moom moo ñëwul waaw ñoom ñaar dawul xare moom moo wétali yaay waaw mooy wétali yaay ah, benn doom bi rek moo ñëw benn moom moo ñëw kala na bu rafet encore na le moom sëtu Latir Cissé la parce que benn doomu euh, rafet na boo xam te dama ko jëloon ci kalakule mu jaay ma ko mu ñëw mu wàcceel ma lii suma kër ma tuddee ko faydu moo tax mu ko faydu femelle boobu waaw femelle waaw moom instant nii moom mu ngi toll moom tamit tamit ci 24 mois la toll. ana doom. déedéet benn doom la wàcce woon bi mu ko wàccee ko ma jox leen ko. waaw ak maal bi waaw ak maal bi. bi tabaat na ci 3 mois. boobu te niiw bu rafet bii nag. kii nii doomu Boy Pula la. Boy Pula nekk doomu Lion di Bawal Boy Pula moo nekk na la ci gétt kalakule moom mooy maalu kalakule bële. ma dem bergerie kala gis ko tamit rek jël ko. waaw ci ñaata mois. boobu léegi nii même pas 2 mois laa ko jël ci moom. 3 ah. mois. Ah. dafa dem dugg añal ñëw rek déclenché ma bàyyi koog mal bi ma bàyyi koog mal bi parce que anniversaire la tombé le 15 bi moo nekkoon moo tax ma jox mal bi waaw le 15 bi mooy anniversaire le 15 bi le 15 bi ma ne ko jour anniversaire am waaw bële bi borom kii ni ñoo bokk papa Sousa mooy seen yaay ñoom tamit ma jëndee ko tamit béjëri karaxule même jour laa ko jënd même jour laa ko jënd karaxule kon euh, métal foo jëm ak moom da nga ciy liggéey wala. waaw métal dama ciy liggéey métal doy la guma ci parce que métal gëm naa ni danañ ko dégg fu nekk parce que dafa nekk xaar moo xamante ne la ñëpp a ngi koy bàyyi xel te yaakaar naa ne tungu ne du nataal ñuy teew yaakaar naa lii moo gën a wóor lii la élevage bëgg booy xool jour bi xar mi judd mu ngi nii date de naissance ngi mu ngi nii macha allah waaw kon leer na leer na leer na noonu métal waaw léegi euh, moom euh, bâtonnier bi sang bi da nga gis xar bi rek mu neex wala bâtonnier bi moom ci neex parce que bâtonnier xam naa fooy jaar ba liggéey lu raw bâtonnier six ans laa def ci élevage waaye dama yàgg ci biir élevage. dama yàgg ci biir dama yàgg ci biir élevage. parce que yaakaar naa ne biir Louga gii nii. fu nekk wër naa ko di taal oto di xool boobu melul nii. waaw. champion. waaw looy wax yaa ngi am na loo wax oh. char naa leen. di leen jox seen wàccuwaay. di leen wax ni bergerie bi ngeen taxaw. muy bergerie Faydu. waaw Cheikh Talibé Baye. muy waaju baax. muy borom métal. métal nag ñëw ci foire bi. macha allah wane fi lu sedd xol wane fi lu dal xel. ndax kuy wër lu baax bu ñëwee gis métal loo yàkkamti yàkkamti boo ñëwee bergerie faydu di nga taxaw di nga taxaw. loo sonn sonn boo ñëwee bergerie faydu di nga taxaw. vraiment lépp lu waay di wër si lu baax bu ñëwee bergerie faydu da ko ah. fiy fekk. borom bergerie faydu nag di métal di taalibe baay di borom métal. nekk nit ku baax koo xamante ni kii man dama koo yàgg xam ñu goneendoo màggandoo mais vraiment lépp lu ma xam ci moom lu baax la ma xam ci moom gëm-gëm mu leer man bu duggee ci élevage bi jom la ciy duggee ak fulla ak fayda te vraiment wane na ko ndax tey éleveurs yi bëri nañ mais dañ koy bàyyi xel moom yal na yàlla liggéey wéral euh, bi moo nekk na leen ci base bi moom mooy 77 397 41 24 waaw adresse bi moom moo nekk en face stade Alboury Ndiaye Grand Louga incha